ambassade yi xalif général bi ku nekk mu ngi oo Ablaye Wade pour jàmm am. d'accord yéexal boobu ma yéexal moo tax wotewuñ ko ba jàmm am bañ mujj gi ñu retiré projet bi. d'accord ba ma génnee xale yi yëkkati ma. maître ci kaw maître léegi combat boobu yëpp boobu amoon régime amoon élément ba ko teg ko. combat boobu yëpp en contrepartie. gañewuloo ci dara en retour ci askan i ah si non lan nga si gagné. ah boo nee boo nee da ngay nekk candidat présidentiel. bañ Pam Ngagne Diallo yóbbaale. non non non wala doomam non non non. nekk président bu paree jox rakam wala doomam non. vingt-cinq pour cent premier tour soixante-quinze pour cent sénégalais yi voté luñu la d'accord te yow am nga vingt-cinq pour cent loi boobu bu ñu fi bàyyi woon kon kon Wade mooy gagné Wade ndax ah. amoon moom quarante pour cent d'accord Macky ci vingt-cinq yi rek yaay jàll d'accord kon tour du am di Sénégal d'accord léegi dina kon yàlla man tax second tour ba léegi mu ngi am ensuite soixante-quinze pour cent ensuite

député du peuple. nañu ko ko nangul waay d'accord maître d'accord loolu c'est important nga. revenir c'est très important pour yow c'est important pour yow. c'est important nga revenir mais maître. Pape Ngagne non non ñu def tëj ko. non maître à part à part nee ma diw ci Sénégal comme De Gaulle ni mu amee bis. nee ma am na fi nit ku ñuy wax l'homme du 23 juillet wala du 4 avril wala du 5 mai sénégalais depuis la depuis Ndiadiane Ndiaye nee ma diw jour sangam moom lañ ko ooyee Sénégal ku man macha allah nee ma diw rek. Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade premier ministre yi ministre yi DG yi sàcc yi ñu am alal mër nee ma diw moo am bis sàngam ci Sénégal ku man macha allah. ma ko xam nga na bis boo boo jox sa bopp yomb na. non ah ma bis boo jox sa bopp yomb na ku sauvé Sénégal bis boo ni maa boo jox sa bopp. loolu ku ne mën na ko am. mais yow dégg bis boo jox sa bopp. ma loolu yomb na loolu maître maître non mais maître s'il vous plaît loo bañ bañ waaw léegi maître léegi ñu ñu génn ci loolu itam bu ñu tardé xawla li ñu war a waxtaane c'est important mais da ngeen nangu ne l'histoire bind léegi ñu des ñu des ci Benno Bokk Yaakaar ne nga génn ci jotagul waaw léegi dama la waaw xam nga loxoy Kajoor dañuy weesaloo ti man dama yaakaar ne Macky Sall respecté na ñi mu àndal loolu laa foogoon de ba léegi sax maa ngi koy foog quand même un ma yaakaar ne xanaa bu dee comme jeexal na ay mandaam boo bëggee dina ñëwaat xanaa ci biir coalition bi dina fal kenn bu fekkee ñu dañu àndoon defee compact am doole boo tax ñu gaye ndax mbooloo mooy doole du dëgg mbooloo moo am ko mel ni Maître El Hadji Diouf l'homme du 23 juin encore am le député du peuple kenn ci ñoom ñeewul présenté candidature man ma présenté sama candidature ma yaakaar xanaa mag yi ak ñooñu dinañ ànd jàppale ma lu may tax rek mel ne ku dof dans bu ma ba xam ne kenn yéenewuma dara ci ñoom. wala Macky yéene wu ma dara xëy na man naa ko yéene mu nekk ñaar yoon président mais man yéene wu ma dara. mais maître may ma rek may ma ah foofu may ma na moom boppam rek moo ko jor ku dul boppam faalewu la bu demee ba xam ne moom yéenul kenn dara yaakaar naa ne moom lu mel noonu bu ko melee dina ma bett moom ñi nekk benn bokk yaakaar yëpp kenn xanaa ñàkk ñu fayda dañ toog ba opposition bi jógee fële ñëw jël pouvoir bi xanaa dinañ ne El Hadj Diouf bokk ci ñun ànd ak ñun fal ñu 2012 fal ñu 2019 waaye nañ ko loxoy kajoor dañuy solo Pape Ngagne nañ ko jox lenge yi am na xam-xam bi avocat international am na expérience bi expérience gouvernementale il a été ministre El Hadj Diouf ministre laa woon xam naa nu ñu yoree réew député laa woon pendant fukki at xam naa nu ñu watee loi nu ñu contrôler gouvernement donc jàng naa nu ñu yore état xam naa la mooy état ci droit bi ma jàng waaye léegi kan moo et puis jub naa macha allah ni moom dagg boppam bëgg naa sama réew am naa programme de pour soulager les travailleurs suqali liggéeykat yi jox liggéey xale yi parce que des travailleurs liggéey laa gëm xam nga lu tax dama gis ñu liggéey ba dee wala retraité amuñ kër kon travailleur sonn na Sénégal. mais maître Sénégal Sénégal travailleur sonn nañ. maître ba tax créé parti des travailleurs. soo soo bëggee defee nii émission bi. Ah, du sax baax si yow. soo bëggee defee nii émission bi ah. non ni nga ko bëggee defee nii quand même bëgg ko non ni nga ko bëggee defee nii boo ko di defee émission bi du baax sax ci parce question du am maa ngi la poser une question répondre ma ci question bi ñu daal di non léegi non mais soo ci génne dama ne du ma génn génn dof bu ma demee ba xam ne gaa ñi tànn ñu ma wala bëgguñu ma wala amuñu fulay tànn ma ndax di tarba yu Macky Sall rek di di nekk ndigalam ma génn ànd ak ñi ma war a àndal sa waay wutee élection yi ne laaj rek laaj rek yàlla moom Macky Sall dañ ko dàq assemblée mu laaj bi muy laaj boobu nga fi fekk Tanor Dieng yàlla ko yàlla yërëm Moustapha Niass ñoo yorewoon doole opposition bi ak Idrissa Seck. ñoom trois bi bi muy laaj moom bokk ci flan génn ci flan Abdoulaye Wade moom président bi muy laaj fekk na mu gagné mairie bu Fatick. Fatick Fatick fekk na mu gagné ko nekk maire. d'accord waaw. waaw maître El waaw waaw la gagné woon maître Abdoulaye Wade maître El Hadj Diouf maître Abdoulaye Wade man maire da koy yoon bi muy laaj réew bi ba di ko gañe est-ce que mos nga gañe benn maire yi. boobu am na parti bu ñuy wax PDS. man man am na parti bu ñuy wax eh, PTP. non non maître comme moom léegi maître. PTP moom mos a dem élection moom kenn ñaari yoon. boobu am na parti. dem naa ñaari élection bu ñuy wax parti démocratique Sénégal nekk parti bi gën a taxaw ci opposition bi. mais ma ni waaw Macky Sall parti am taxawagul sax ci bi mu ñëwee dafa jël réew mi. ok bu dee taxawaay rek parti yow daanu nga. non waxum non non APR moom du parti bu taxaw ma su dem élection moom kenn APR mosul dem élection kenn dekkal ngor la demoon coalition maire yi dem élection ba dem ko yaakaar ba léegi ñëwul génn moom kenn dem kon bu wax ay parti bu taxaw man pe PDP après ah, gën ko taxaw de PDP moo ñëwee dem élection deux fois beneen bi am na plus forest beneen jàllul mais am na fit dem moom du parti yóbbaale ma am na dignité yi suñu parti def suñu liste déposé fay caution ñu ponkal yu bëri ñëwuñ ko parti yu ngand yi fi jiite woon ginnaaw Macky Sall tëdd kenn ci ñoom dem même après ragal naa dem moom kenn. kon kon ñun dañu wóolu suñu bopp gëm suñu bopp attention dañu parti globalement te gis nañ fi ñoo xam ni bu ma tax wax fi la jógee comme man plus forest am ay quinze pour cent mais pourquoi ngeen bëgg ñu naj ñeen nañu ko ëpp expérience ñooñu nekk ministre nekk député nekk l'homme du 23 juin bëgg sa réew am yërmande ci réew mi am ful la yore réew mi mais bu mais dëgg yàgg bawul dara nañ dem ba ci kanam incha allah. maître. yaa ngi toujours ci biir benn bokk yaakaar président de la république wax ay yu claires ñu bëri di ko appliquer concernant le mandat bëgg nit ñi mandu ci parce que jàpp na ni wax ci mën na tardel liggéeyam mais loolu ci ku xam ni foofu nga bokk ci coalition boobu war nga am benn discipline aussi mën ko respecter. Ah loolu boo ko deful. mais loolu yaa ngi jalgati chartu seen ay coalition ah, est-ce que loolu rek doyul non non non mais bien sûr. dañu Macky Sall mooy suñu yàlla. non non c'est la Bible lu mu wax da ngeen loolu loolu fekkente ni yow mënuloo ko est-ce que gënul nga jël sa position taxaw fële. ni ko li nga wax du ma ko def mais génn naa ci sa coalition. charte benn dañu <coughs> ñëpp ngeen à part Macky Sall ay jaam ngeen papa yi Macky Sall ñëpp ba bu neen lii laa bëgg yéen ñëpp ngeen sëgg waaf est-ce que loolu mooy texte bennoo yi wala dañu bëgg àndandoo suñu boole dañu ne mbooloo mooy doole boole dóorandoo moom waxoon Euh, euh, comment dirais-je gouverner ensemble. ah gagner ensemble gagner ensemble gouverner ensemble. kon boo gagné ensemble gouverner ensemble boo ñëw ñëw ay nawle lañu dañu ànd ensemble waaye waaye kii nekk ci kaw kii nekk suuf kon Macky la lan lu tax Macky mën a wax ni bu kenn wax lii. parce que mooy leader bi. non attends parce que mooy leader bi. non leader ci lan. mais mooy leader ci coalition bi. du leader dara. coalition mooy leader pas moom. sans la coalition Macky n'est rien. non non dafa ne il faut que ça soit clair est-ce que Macky moo fal lan la coalition bi mën a doon. waaw déglu ma sans Macky lan la coalition. waaw déglu ma qui a besoin qui a besoin de qui entre la coalition et Macky kan ma soxla moromam pour yore milliards yi yore budget bi yore motards yi yore palais présidentiel kan moo soxla kii entre Benno Benno mooy installé palais wala Macky fay installé ku ñuy ku ñuy jox avion présidentiel Benno ñun ñoo ciy yëg avion présidentiel. kan moo bëggoon a gagné pour ne lii laa bëgg def ci réew mi dimbale leen ma ñëw leen jàppale ma ki la wala ki moo soxla ni ñi wala nit ñee ko soxla. waaw du woon moom rek est-ce que man soxla naa man moom rek comme candidat par exemple man est-ce que moom ma soxla parce que man naa ko bu baax xam na xam na ci dara <laughs> mais xam ne ni Tanor Dieng yàlla ko yàlla yërëm jàppale na ko bu baax ay ay ngéeñeen ak feneen xam na ne Omar Youm jàppale na ko caajaay. xam na ne Mimi Touré. maa koy xool encore ci élection yi ni mu sonnee woon. ñi mu soxla def na leen ay ministre ak ay directeur général. bu ko bu yem géré na leen ñooñu ñi mu soxla. waaw ñi mu soxla. waaw. bi mu jekkoo ba pare. waaw lu sotti am borom.